asalaamaaleykum waaw ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm kilifa bi toog di wax ne la répétition bi pédagogique jar woon sax ñu jël kàddu ndax kilifa yi nga xam ne ñu jiite fii ba jëlee kàddu macha allah amatuma lenn ma ci teg gis naa fa ay surprise nag ku ci mel ni champion bi Balla Diouf xëy na maa ngi doog a daje ak moom ci cérémonie mel nii te aussi euh, xaw ma woon kuy Balla mais daf ma résumé live am euh, ñu koy nawloo bu baax di di ko xamal ni gàcce ngalaama maanaam sa palmarès rafet na trop te fi nga mujjee aussi rafet na trop maanaam dañuy ñaan yàlla mel ni yow rek ndax donte ñun aussi ay intellectuel lañ mais euh, tey ni ñu mel euh, suñ Bamba mu nuyu la ak ak Cheikh Matar. wax jour rek ay soldats lañu nekk seen kanam ndax ñun tey bu ñu demee ba office national de la formation professionnelle jël ñu ñu liggéey ci bureau boobu mu embauché ñu muy euh, le directeur Soum kii Souleymane Soumaré c'est à cause de Bamba. formation bi nga xamee ne moom la ñuy defal ñuy première promotion à Dakar ñu ngi gërëm ñëpp di ñaar aussi tamit euh, sponsor bi mu mujjee ñëw muy 3FPT euh, mu jàppale jeunesse bi ni ñu ONFP euh, defaloon mu defal ko jeunesse bi bu ñu ci jël ba 5 ba 10 éléments pour la sécurité aussi tamit ñi def ko. parce que mbëri mbëri sax man ndax man damay métti toujours rek ñu yi ci mbëri lay jógee. y a des videurs yoo xam ne mosu ñoo nekk mbër c'est des gros bras dañuy entraîné lu toog seen biir bi. buñ génnee ñu considéré ne comme des leaders alors que duñ ay mbër mbër day am licence nekk professionnel te mbër moom di dugg ci yenn yi chaque jour rek ki nga xool ne mooy saltel da ngay foog ne mbër boo demee au fond kooku association des malfaiteurs la yoo xamee ne bokkuñu sax mbër yi mbër yi dañoo am fulla am fayda hmm. di dimbali seen way jur yi loolu rek moo leen tax a jóg maa ngi gërëm ñëpp di gërëm euh, champion yi fi toog ñëpp vraiment maa fi gën a tuut nag ci jël kàddu mais maa ngi jégaluwaat bu baax a baax di gërëm suñu papa Ousmane Diouf nii ak euh, suñu père Aboul yi ak euh, maanaam membre FILS bi yëpp ñun ci lañ bokk am nañ carte ko am carte rek ci association FILS nga bokk di gërëm président bi Bamba Mboub ménagère bëgg fàllu ak ñoom père Ibrahima Mbaye ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax ku ñu tudd rek dañuy dañuy juum daal wasalaamaaleykum